xam nañ ni période bi ñu nekk mu nekk période ñuy approche fête korité li ñuy soxla ci poulet dafa bari te donc bu boo nekkee ministre boo xamante ne yow yaa war a lijjanti euh, approvisionnement correct du marché dafay jaadu nga dem ci acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy jouer rôle majeur pour nga xool nan lay stock bi tolloo ci seen seen loxo donc di rappeler ni production euh, avicole bi nekk na lu am solo waaye gis nañ ni Euh, li ëpp 60 pour cent li nga xamante ne ñoom ñooy ay industriel ñoom ñoo koy def donc leneen li euh, yeneen acteurs yi ñoom ñoo ñoo ci nekk donc bu ñu gisee indisponibilité acceptable ci industriel yi dañuy am yaakaar ni euh, dina marché bi du am jafe-jafe yu tar dégg la ministère du commerce constaté na ci fan yële ñu jógee ni am na tuuti hausse prix yi poulet bi day wane ni rek am na tuuti euh, lu wàññeeku si euh, approvisionnement bi donc bu ñu gisee euh, ak li fi nekk ci sédiment ñu am yaakaar ni ci yeneen entreprise yi yëpp dinañ ko am production yu acceptable am na ñu yaakaar ni déficit bi du ko tax a tar noonu te incha allah ñëpp mën nañu am poulet bu ñu soxla ci période korité bi ah jamono ji ñu toll nag dañu nekk ci waajtaayu korité ku nekk korité nag ne ginaar Sénégal yi yëpp a ngi dégg ndax danañ am ginaar yi nga xam ne soxla nañ ko waaye li ñu gis yii de ci contexte bii nga xam ne dañoo nekk ci Covid ba taxoon euh, cuuc ci manqué ñi nga xam ne waroon nañoo def seen loxo ci mbir mi am sooxe ci seen liggéey yéen ngeen def lii lu ñu def lu gërëm leen di leen sant nee nañ ma nag ne. ci weeru koor gi moom li ñuy soxla ci ay ginaar dina war a toll ci fukki million nee nañ ma tamit li nga xam ne ñi jaay ay cuuj di ko jaay ñi nga xam ne ñooy yar jaayaat ñoo ñu yar di jaayaat jënd nañ daanaka lu toll ci juróom-ñeenti million donc mu mel ne fukk yu ñuy xaar juróom-ñeent yi war nañ ko matale loolu nag ah dara la waaye xam nga jaayeen yi moom seen bëgg-bëgg pour nga mën koo matale dafay doy dafay doy waar lool ah, ñu xamee ko noonu ah, di am yaakaar ne bu ñu jógee ci lii maanaam semaine yi nga xam ne dañ ciy dugg ah da ngeen dellu ca la ngeen nekkoon yokk production yi ndax demande bi mën a ñu mën koo matale comme ni mu meloon. question bi sénégalais di posé wu tey moom mooy est-ce que ginaar. amna dina am lu doy ci korité bi effectivement ci statistique yi mu am yi mu bolé sénégalais yi soxla 10 millions de poulets pour euh, korité bi l'ensemble des producteurs Sedima ak ñenen gorgol nañu bu produire 9 millions de poulets. ci fofu nak lañu constater constaté écartu écart 10 C'est mom moy déficit bi nga nañ ko euh, ci production wu Guinard.

liggéey bi mujjé metti plan de relance bi xëy na dinañu permettre ñu delluwaat suñu activité mun a produire at ginaar ndaxte sénégalais nak wax dëgg fa yalla soxla nañ ko bu ñu delluwul ci ci tool yi bu ñu delluwul ci ferme yi pour produire euh, le poulet qu'on sait produire problème xëy dina am mais dañuy jàngat lan moo waral hausse du prix du poulet ndaxte boo xoolee ci monde entier li ko waral mooy hausse du prix du maïs tey jii nii ginaar li koy euh, defar aliment la aliment lu koy defar 60 bi maïs la mboq la mboq bobu ñun industriels yi dañ koy importer dañ koy jëlé ba Argentine jëlé ko ba Brésil indi ko fii jëlee ko nak lu cher ndax ci Covid bi prix wu mboq yoy yok na de plus de 30 té ñi ngi waajalaat né nañu yok prix bobu ba 60 ci prix wu mboq ku jundé mboq lolu euh diko produire ça veut dire que da ngay produire à perte. lool mo waral li nga xamante ne métti nañu loolu ñun ñëpp diko ko diko joytu hausse du prix du de l'aliment mo indi tamit hausse du prix du poulet.